ñu jëm mhm. askan wi nañu xam ni su boobaa Ousmane Sonko moo leen gënal Serigne Touba parce que nag bu fekkente ni Serigne Touba buñ ko saagaa mhm. yow ki nga xamante ni moo fat ki ko saaga nga woteel ko su boobaa nga war a xoolaat sa bopp ak sa taxawaay loolu mooy li nga xam responsabilité bi ñu si am pour yee ndaw ñi mhm. yee jigéen ñi yee mag ñi dëkk si département rawatina Touba particulièrement ni waa Tiwaawoon def ba fa Ousmane Sonko jaaree wan ko ni ko da ngay la waxuñoo ak yow mais waa Touba war ko def leen li nga xamante ne mooy li si am te gën a garaaw. mooy ni muy jaxasee suñu kilifa yi Ousmane Sonko bu dëkkee Touba du dem Kër Sëñ Fallou. bu dëkkee Touba du dem Njenne. bu dëkkee Touba du dem seeti xalif général Baye Fall. bu dëkkee Touba du dem Kër Sëñ Daam Atan. bu demee Kër Sëñ Soye bu dem Kër Sëñ Fallou Soye bàyyi seen Seex Say. bu demee Kër Sëñ Moustapha Bassirou dem Kër sañ Moussa euh, sëñ Bassirou Poroxaan bàyyi sañ musa Naawel. mais y a un te lii musul am si dëkk bi musul am lu mel ni nag. ñun si boppam ñu njëkk si dëkk bi ak njabootu sëñ bi ñoo ko war a saafara. débat bi ñu élection bi ñu jëm am na ñoo xam ne tey ñàkk programme ñàkk gis-gis am profil yoo xam ne sénégal yi seexlu nañ ko. ak ñenn ñoo xam ne parce que système bi dafa tooyal seen ceeb waxuma la de Cheikh Yérim ñooña ñëpp ñi ngi fexe ba élection yi ñu jëm du doon élection bu ñuy débattre ci programme ak avenir Sénégal waaye élection bu ñuy débatre ci lan mooy murit ak lan mooy xaadar ak lan mooy layeen la bu leen ko nangu bu leen ko nangu parce que du loolu mooy enjeu bi Sénégal bu baaxee baaxal Sénégal yëpp waaye bu bone bonal Sénégal yëpp tey amul ku ku amul xeet wala diine wala tarixa boo xam ne amul nit ñu fa bokk te ñu ngay souffrir